boo mënee rek mën nga waaye nga bëgg a amoo matériel dangay toog te bàyyi ñi mën te am matériel dem la nee la boo mënee rek mën nga waaye nga bëgg a mën te amoo matériel. lii way wa am solo la. looy xeex looy def baaraaw. tuul tuul. em ngẫm nguyên sĩ được Ôi, tốt lên, tốt lên Một bài kia bật cái nào ménage à toi ma petite sœur de cœur Andy sama séeréer bi neewoon naa la tant que déggoo heure ménage ci biir réew réew mi du mën a stable xale baax xale yaru xale bëri valeur nangoo liggéey am jom ci mim réew fi réew mi toll waar fakaa la macha allah dimanche le 11 août nga dégg heure ménage ñaari xattu jëkkëram la femme di boos sama rakk ji newoon naa la da nga koy dégg da ngay toog ci lal bu weex bi sol bu mu weex bi col bu weex bi wër la tant que jaragoo nag réew mi tubaab fakkaal la macha allah benn jéeg dootul nelaw guddi mais finalement sama rakk ji dégg na heure ménage njarte am na luay doon jaay tay mu lamb ki dégg heure ménage séeréer la mo bari jom teel ñak yaay bari jom bari ay qualité bari ay valeur meun nitam bax lol bo la ko ak yaw ak beugul bax sama rak ji jomam sama séeréer bi anji tànk jaragoo borom iconique benn jeeg dootul nalew guddi te plat du jour dootul amati ci ben keur lu ko waral sa jongoma ci nim rew dak na ragal nak muy daw ba tuba fa kala caaka njaay mu taxaw ñu nako koy seet eh rew mi day stable état bi day liggéey tuba fa kala xam nga lu ko waral da nga jaar

ak waaye toog leen toog leen boo leen toogee ci jotaay tànk que waxuñu la séance est levée waaye toog leen toog leen yow sama doomu ndey di sama mbokk man jaaroo bëgg ma te doo ko digal lu ñaaw lu baax xam nga lu waral lool parce que da ngaa riis ku nekk dama ne la da ngaa riis te sarak ji bu ñëpp gëmmee jëlal kenn bu ñëpp gëmmee yow nga def lépp am nga jot bi am nga ngor te xale bu mos a fii toog yow bis bi jot jëf leen te ko wet na laaj ba jaar ci la dëkk ci la dëkk ci la dëkk borom pari li wax sëy dina wet na laaj ba jaar ci la dëkk ci la dëkk ci la dëkk borom pari li wax sëy dinaa mu xam ne ci la yaru jéeg bu baax. waaw bëgg anjaara te dawatul dara. pour foofu anjaara nga def moo nekk nag. bilaay jëndali ko. kon ba nawet bi dafa ko métti. ay waay Samba waxal yaa dafa métti. waaye su mu yéene rek sa kaw. waxal sa kaw. ana taal yu ñu am yàgg. ah taal bi taal bi su fekkee. moom photo mooy problème am. woo taal bi. taal bi daanaka. moo toog fii léegi ma ne ko. taal bi kay fekk.

Ya? Masalah. lay am Masa mau gocok ya kan deh